من السنغال إلى أدغال غابون وذلك يذكرنا بأحداث النفي والإقامة الجبرية اللتان فردهما المستعمرون على الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لإدراكهم التام أن أحمد الخديم ينتهج من نهج إيجاد حركة قوية إيمانا بالله ومتبعا لدينه الإسلام ومستقلا اقتصاديا فشيخ أحمد الخديم ربى الأتباع على الإيمان الخوي بالله subhanahu wa taala wa ala tamassuk bi diinihim al islam wa ala al uxuwati wa tahaabub wa taawun wa waxdati al kalima wa ala al ijtihaad fi lkasbi li annahu raa ana al muslima laa yaqwa bi diinihi illa an yastatiya an yactabida ala nafsihi wa yuwaffira li nafsihi lawaasim alxayaa ولقد رأى المستعمرون خطر تهديد مصالحهم في الحركة ومن هنا قرروا نفي السيخ حينا وأحيانا أخرى فرضوا الإقامة الجبرية عليه سعيا وراء تسديد سمل الحركة والقضاء عليها يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ومن الأهمية بمكان في هذه المناسبة أن نراجع ونتدارس منهج الشيخ رضي الله تعالى عنه وتعاليمه لكي نستطيع مواصلة الخطى والمسيرة ومن إسادات وتوجيهات أحمد الخديم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله أمر كاتب هذه العروف جميع أتباعه بمراعاة ما كتبته هنا فإن امتثلوا فلهم وإلا فعليهم يا محسر أتباعي استمعوا واقبلوا مني لا تخالفوا السريعة المطهرة مع ما تيسر لكم من الحقيقة المنورة والسريعة المطهرة الإيمان بالله ونية الخير والإسلام بالفروع الفقهية بما تيسر لكم من الحقيقة المنورة من قصد وجه الله تبارك وتعالى عند الامتثال وعند الاجتناب ومن الامتثال فعل فعل الواجبات والمندوبات وإصلاحها بالمباحات ومن الاجتناب itinaabu say xiif itinaabu sax si fi ala say in ma mimma nahaahu laahu anhu tabaraka wa taala bi sariati almutahara aydan tahriman aw takrihan famtasiloo wajtanibuu li wajhi llaahi tabaraka wa taala maa liktifaai bi mujarrati saria maa maa tayassar lakum min alxaqiqati almunawara bila mujaawasatihima ila xayrihima fa in amaamakum maa dahaakum ila samhi maa naadaytukum ilayhi wa xabuli falaa taxurannakum alxayaatu dunia walaa yaxurannakum billaahi alxarur إن الرجوع إلى إرسادات أحمد الخديم رضي الله تعالى عنه وتوجيهاته هو سبيل القوة والنجاح لنا في رحلتنا الحياتية ولقد بدأنا نلحس انسياب بعض خيامنا الحظيمة فعسى الله أن يأتي بالفتح اللهم قوي إيماننا ونجنا من نزخات الشيطان والعثرات